damay nuyu tout d'abord délégué quartier bi nga xamné moñu dalal ci koñ bi tay mi nga xamné ne mo ngi yabal rakam Ousmane Kébé fi mu représenté ko di nuyu marraine bi muy Awa Gueye waye tamit duma faté suma frère Karim Cissé mi nga xamné ne sœur moko fi téwal waye tamit famille won mi nga xamné ne tamit ñoo fi téw tay kaddu gu ñëk gi nak kàddu ndokkeel la di ko jëmale ki nga xam ne ne moo waral lii muy yaay ji nga xam ne ne moo jur bebe bi di ñaanal xale bi yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko tawféex yàlla na ko yàlla may fan bu gudd te lii yàlla na ko jig ngir mu doon njëriñu Kaolack ak Sénégal yépp ci ndokkeel yooyu noonu maa ngi ciy fàttaliku baay ji waaye tamit ndokkeel spécial équipe bi nga xam ne ne ñoo constitué moo ngi équipe médicale bi moo xam infirmier bi ak sage bi nga xam ne ne ñoo rawle yaay ji maa ngi leen di ndokkeel di leen wax ne mbir mi nii la di leen gën a ñaax seen liggéey ndax askan bi dañoo yaakaar ci ñoom bu lolou wesso ma ngi len di wax ne kontaan na lol amna fierté lol ci tànn bi nga xamne ne comité de développement de santé bi boole nañ ma ci parrain bëss bi ni ma len ci sante bu baax comité bi nga xamne ne ñepp ñëpp nañ len seen xarañté machallah allah te li nek Cheikh sar muy sama rak ju baax pour Kaulak, pour Sam nous répondrons toujours présent Ça, ñu wooyee ndem suñ moyen toll tous dinañ ci taxaw looloo tax ba ngeen ma ne ay matériels matériel médical bi paramédical pèse personne bi euh,

ñu ko fi yamale waaye permettre len ma rek tamit ma sante comité d'organisation bi nga xamné ñoo organiser événement qui c'est un événement bi machallah réussir na mobilisation bi rafet na organisation jarno yon félicitations à vous di remercier population Sam au-delà population de nangaan yep mais tamit population Sénégal yëpp parce que am na gan yoo xam ne ne jóge nañ ba Fatick ñii jóge ba Dakar ñëw fekk si ñu ñoo ñëpp maa ngi leen di sant waaye yee mention spéciale amee battante ces jeunes filles là ñi ngeen xam ne kaw nag nangaan moo leen ñor ñu ñëw doyloo ma def ma njiit ma jël événement bi tegaat ko seen loxo maa ngi leen di sant di leen remercier ci accompagnement bi ñu ñu àndal ak man taalibe waaye su ma remercier Batanti rek remercier naa mouvement bi ñu bokk ñoom ñëpp muy Kaolack Nouvelle Vision